entendu quand même des gens de l'opposition nouvellement de l'opposition xëy ànd ak ñun pendant douze ans mhm. à quelques mois des élections ñu ñëw taxaw di jooy pour les jeunes ça c'est malsain li ma gëm mooy il faut qu'on vous avez des noms non je citerai pas de nom je citerai pas de nom parce que c'est des gens yi nga xamante ne nii quoi que l'on puisse dire man je considère que ni c'est des nôtres mhm. parce que mënoo ànd ak nit fukki at ak ñaar je pense que vous parlez man je faisais plutôt allusion xam nga Mame Boye Diao ça je tiens à le dire. Mhm. Mame Boye Diao c'est mon frère. ak lu munti am c'est votre frère. am il mhm. restera mon frère. mais sur ce coup-ci. il s'est bourré c'est-à-dire dafa mbëkk miir. Hmm? carrément parce que. aujourd'hui côté. oui parce que aujourd'hui c'est quelqu'un bi nga xamante ne nii waroon na mën a apporter lu bari. ci li nga xamante ne moom la ñuy àggali. Mhm. c'est quelqu'un qui est cautionnaire du bilan. de Macky Sall ñu jàpp ni que ni le de soutenir la candidature de Amadou Ba n'est rien d'autre que consolider li nga xamante ne ñu ngi ko doon tabax ñu nag ñoom Mame Boye depuis douze ans. Mhm. tey le fait de dire que ni mi ngi beddeeku di dem c'est son droit le plus absolu mais dama jàpp ni que c'était pas le meilleur choix.